maa ngi nuyoo lim tawul doomu Sénégal yëpp. te mhm. tey xam naa ne ñu bëree bëri euh, amuñu lu leen neex ci décision yi nga xam ne jógee na ca tuur. Mhm. te dara waralu ko dugg ñàkk sàmmonte am. Mhm. Euh, jarul ñu ci jaaraat ku nekk xam na. di euh, waraloon ñu jékki-jékki ne Ousmane Sonko rajo nañu ko. Hmm. ba ñu ngi euh, ci kanamu si si si bi nekk euh, tribunal instance de hmm. mu joxe benn décision décision boobu état du Sénégal malgré que jëfewuñu ko waaye dañoo defoon tel ci cour suprême pour mu war leen àttal. Hmm. cour suprême nag tey it passé wul. wax nañ demaat beneen tribunal muy tribunal grande instance nekk Dakar àtte nekk loo xam ne na fi jurisprudence tey mu bindu moom pour ñu àtte ko ko doxaa bindoo maanaam ku bindoo fi ko war a defee mi waroo ko defee fi nga fi tey ji Ousmane Sonko euh, dañ ko demandé ne ko nga ñu ko watee ba nga xam ne bu dee ci fichier bi tax ñuy wax foofu dañu. kenn du la fa kenn du la fa euh, euh, mais da ngay ñëw fa kenn maanaam ci këyit kenn xamul la fi ñu àtteel. Ousmane Sonko bi mu bëggee nekk maire Ziguinchor demul dem pour nekk mais tey bu bëggoon a nekk maire dañ koy ni da dëkkoo li ñuy wane mooy dëkk mais li gën a garaaw tey mooy euh, man li ma bëgg a wax rek la euh, xam ne moo tax tax ma ma ma may mhm. àdduna yi ñi nga xam ne ñooy waa Pastef mhm. xam ne ñooy patriote yi loo leen bëgg a wax la dogal ñuy ànd ak Ousmane Sonko di ko jàppale di leen wax rek bu leen bu leen euh, découragé te it bu seen xol naqari ci dara. Mhm. parce que Sonko dafa nekk nit ku nga xam ne lim ñuy def yàlla suñu borom subhaanahu wa taala ci boppam moo ci ànd ak moom. Mhm. te li tax mu ànd moom mooy saa su nekk da ngay gis muy def nit ñi di ko tëral pour koo rendi suñu borom ci boppam moo ci dul ànd. Mhm. ndax ñëpp ci ginnaaw ba léegi Macky Sall mi ngi bëgg a jàpp génn génnee ko ci fichier électoral bi te mënu ko maanaam éliminer ko ci élection yi ba du bokk te ba léegi mënu ko te tey jii tey jii tey jii la gën a wane ne Ousmane Sonko ba léegi kenn mënu ko wax ni mu bokk ci élection hmm. te loolu juge yooyu taxawoon Cour suprême tey ñoom ñoo ñoo def ci mën a def ci fichier bi. naka la demee. naka la demee mooy ku nekk xam na bi ñu demee te euh, bi ci guddi bi dañuy suuf bu déglu. mooy ku jigéen. waaw. mi ah ala xaw ma. waaw waaw ku jigéen ki waaw. jigéen ki dafa desul. Mm-hmm. léegi cinq bi bu ñu toogee kenn bu bu desul te ñaata lay ñeent. léegi ñeent si fan la am ci àdduna nga gis ñeent ñu ngi léegi bu ñaar ñi waxoon waaw ñaar ñi wax déet. Mm-hmm. am nañ mm, tolloo de. ci ci ci ci benn ci booy gis ñaari nit duñ àtte ñeenti nit duñ àtte. maanaam impair bu ak impôt de faaw mu mhm. boobu mooy tax te mën a am mooy bu ñett jëmee ne ñaar jëm ne ñu topp ñett ñi dëgg la noonu mooy léegi nag bu ciy député ñoom dañoo toog en tant que quatre personnes man damaa xamul liñ def yàllaa leen gën a mën xaw nañ ko mhm. personne toog rendre décision mhm. décision boobu ñu rendre nag baaxut te kenn du ko loolu la ñuy wax ci droit vice de forme vice de forme effectivement lu ñuy wax witt loolu nag avocat Ousmane Sonko yi xam nañ li yoon may mooy dañuy dugal rabaada mooy te biñ leen àtte tey dañ koy dugal def def rabaada rek foofu ci cour suprême wane ne àtte bi dafa am lu ñuy wax witt de forme te loolu kenn mënu ko wéral def sa ndaw si dafa bind. bind ne moom bokkatu ci kon dañ ko waroon a remplacé ñu nekk cinq justice ba noppi. ñoo mhm. ko rendre décision bu ko ñu remplacé ko ñoom ñu jël quatre personnes mhm, mhm. buñ ko dugalee. structure te tey jii ci boppam koy attew maanaam au lieu ñuy dem ca grande ñu dem suuf ba centre judiciaire la dañuy attewaat te bii ñu atte Ousmane Sonko tey dañ koy teew indice koy attewaat ni cour bi yëpp ñooy revenir juge yi te woon tey duñ ko mën ñoom pourtant nag a suñu Sénégal bu fekkee bu daara ji sama yooyu mooy nga xam dañuy mel ne ay tailleur ci moom. Mhm. defe naa bu ñu amoon ba yeneen gis bu ñu ñëwee rendre décision defe naa ne day favorable Ousmane Sonko kenn wérantewul Sonko moo nekk ci dëgg même ñoom ñi àtte sax ñu ñëw nangu wu ñoo àtte bi ne dañoo def wax wax ñu dégg. Mhm. Mhm. mais non seulement décision bi ñu jël baaxul mais ñoom ñi toog di wane ay juge la ñooy rendre décision ñoom ci seen bopp. donc mm-hmm. mm-hmm. mooy lépp Ousmane Sonko yàlla te ñoom tey lu ñu danañ danañ danañ dugal vocation tey ñun ñoo ma gën a xam droit danañ dugal ban. Mm-hmm. ci kanam ci cour suprême boobu. fekk seen seen décision bii. Ousmane Sonko dëgg. kon su ma la déggee bu baax Cheikh Bara ak tooñ am na ci ak illégalité ci wàllu attin bi. loolu moom ñun toppuñu ko xam nga ñu toog suñuy kër toog suñuy ruq di déglu yi ak rajo yi took topp di topp di xelal. kenn mhm. ne moom tey ñeenti gis ñoo loolu nag xanaa yow nii nga xam ne doo surfi journaliste xam nga ne yow boo boo ñëwoon dañuy attel. Mhm. xam dañ ne woon maanaam mbootaayu jigéen donc buñ doon attel kenn ku na kenn ku ne waaw kenn ku ne déet léegi lan la ci topp. bu ñuy wax te impair bi moo dëgg la. mooy il juróomi ji ñi buñ ne waw ñett ñaar ñu ne déet ñu topp ñett ñi. mais tey ñeent ji kon vice de forme. bi tamit illégal amul amul amul base juridique mais ñoom ci seen xam nañ ne li ñu def vice de forme la. li loolu même maa ngi koy ñaawlu ta di ñaan soo koy jub. dana doone ci li ci yoon maye mooy danañ. Mhm. moom la ñu. moom la loolu moo di dëppoo am na solo. di jaajëfal nag peuple Sénégal bi yëpp dafa meloon na. Euh, maanaam Sénégal mooy foot bi. Mhm. amul kenn ñëpp invité taxaw ñëpp. di xaar. boo xoolee sax biñ njëkkee dana feeg niw si ne Ousmane Sonko jël na ndam sax yoo yi nga dégg ci kër yi ak nit ñi ni doon génn ci mbedd yi seen buntu kër yi di taxaw loolu lu dul match Sénégal mënu ko defal Ousmane Sonko. dëgg la. Ousmane Sonko moom dooleem comme Sénégal koy gën. Mhm, mhm. loolu rek mooy. Macky Sall yéen yëngal yéegal wàcc gi muy def ak coowul lépp mooy li ma bëgg rek mooy génnee Sonko ci xoolu Sénégalais yi wala moom ci boppam mu dugg ci xolu Sénégalais yi loolu. Mm-hmm. kon donc ñu ngi jaajëfal peuple Sénégal du jaajëfal patriote yëpp. di wax ñu ànd ak dal. Mm-hmm. Ousmane Sonko élection yi dina ci bokk te kenn mënu ko cee teree mm-hmm. Sall keneen ku dul Macky moo ci yem te yàlla dëgg la yàlla ànd naa ko suñu boppam te moo nekk ci